Aïcha kon ñi daal di jàll ci un yi nga toog te bëri woo ko euh, ba xam ci biir un an yi doon nga ci dégg ay combat wala déet nu mu demee noonu un an nga toog ko ferme ci mbër mu toll ni yow. non man an sax garaawul parce que toog naa fi six ans yu ma soo xoolee suma diggante suma combat bi ma mujjee bëri ak bi ma bëree bu daaw bi. Mhm. toog naa fi six ans 2013 ba 2019. lan moo ko waral. mooy li ma la wax rek mooy làmb ju kale. xam nga tey jii bon douze bu bu bu bouché lan la wa ilaa ñu màq ko wa ilaa ñu débouché ko. parce que boo defee dara dootul jàll mooy làmb ji tey boo xoolee tey jii ñu ngi ci ban mois ñu ngi ci mois de presque janvier janvier trois jours ma ci xaw ma quatre tey xoolal làmb mu ngi bu novembre décembre janvier trois mois te gisa ko fi benn combat combat bu concret bu taxaw boo xam ne taxaw na bii ñëpp xam ne date bii combat bi dina bii ñu doon wax sax est-ce que dina am est que maybe yaa ngi I don't know mm-hmm. léegi nag yu mel noonu tamit xam nga moo lay wane làmb yi vraiment mu ngi ralentiru te janvier day doon am combat mag. Mhm. yaa ngi fàttaliku. dëgg ku ne xam ne janvier lamb bi muy dox. lamb yi premier janvier ay mbër VIP ñoo ko daan bëre. kon nag ça veut tout dire léegi nag lii raam nag malaa dem ci ñag bi dañ ko kar. ci ci ci sa biir un an yi ndax mën naa xam ndax am na ñu la si doon wax dila la ko proposé wala déet. oui proposition yi moom du ñàkk mais proposition yi moom du ñàkk ku ne xam na ne moom proposition yi du ñàkk soit proposition yu sérieuse wala yu non sérieuse yooyu day am. promoteur mun na ñëw sax bon ne la diw laa bëgg fekk lamay wax du dëgg ci moom wala ay tooñ ci moom bon ñoo xam mais loolu moom mënul ñàkk mais ñin ku ne xam ne ne bon toll nañ foo xam ne ci làmb ñu ngi presque fin de carrière amatuñu lu ñuy prouver léegi li ci nekk mooy suñuy rakk yi xam ne def nañ preuve yaa ngi dégg te xam nañ ne bon làmb bon am nañ ci wàll ñu may leen loxo yaa ngi dégg après li ci am bu ñu daanee ñu dem bëri jéeg ñi ci kaw buñ leen daanee ñu dem jàngiwaat rek <laughs> waaw waaw. ci ci ci sa biir làmb ñaata combat nga bëri ak ñaata victoire nga ci am ak ñaata défaite nga ci nga ciy jëlee. man sama carrière def naa ci vingt et un komba am na dix sept défaite ah sama am naa sept défaite. sept défaite am naa ko. kon léegi nañ tegg waaw no am naa sept défaite moom xam nga. Mhm. ma juum am naa vingt et un mhm. combat. Mhm. am naa set défaite la ci des ak victoire la. yaa ngi dégg mais ku ne xam na ne bon bon boo gisee sax ñu xaw ma fàtte mooy standby bi mu amoon ci diggante bi parce que diggante bi toog naa fi 6 ans 6 ans nag du caaxaan 6 ans boo xoolee xale bi est-ce na 6 ans. mais mais yooyu fan nga nekkoon 6 ans nga toog ko ci lamb ji en tant que Pape Sène ah, am tour ci lamb mu jëw. mais nooy def bëre amul firi kenn tëggu sa bopp du xam nga du bëgg yaay dem ne diw ka yi bëre par force 6 ans yi gisuma promoteur promoteur yi may waxal boo affaire yi du. du du am aboutissement parce que tamit man ku ne xam na ne li may wax nii maa ngi koy wax ci média laay waxee xam fu wax bi jëm mais man tey amul benn promoteur bu la wax ne la man Pape Sène moo gën a naqari teg combat ci làmb amut. parce que man suma ma digganteeg làmb suma ci dugal kenn mhm. man kenn mosuma waxaaleel sama début carrière ba fii ma nekk ci fin de carrière kenn mosuma waxaaleel parce que man dama doon wax ne làmb ji man rek la engagé parce que maay dem ci géew ba man promoteur daaw ñu wax ñaari wax ñett te combat bi taxawul. yaa ngi dégg mais nag booba xam nga gisuma promoteur te tamit promoteur yi tamit di nga gis nii boo dafa ñu bëri ñoo xam ne nii dañu am problème ñi ci xaw a risqué yëpp jël seeni bien def ko ci làmb finalement dañu mujj sonn ñii dañu mujj xam am problème ak justice ñii mujj génn dëkk bi. xam nga moo lan moo waral seen problème yooyu noonu ak ay justice ak yooyu ah, noonu mais làmb la dañuy jël xaalisu jàmbur wala. xaalisu jàmbur ku ne xam ne làmb li may wax chaque jour rek guichet yoru làmb guichet yoru làmb de li may wax ni promoteur yaa ngi may Gaston mu may dégg Luc Nicolaï mu ngi may dégg Aziz Ndiaye mu may dégg sëñ Modou Ndiaye may dégg lamb ku ko yaakaar ci guichet mbapat yi sax guichet yor ko wala lamb lamb yi ñuy fay ay million kooku du guichet moo koy génnee parce que yow dégg nga fi am na benn rapport bu waa CNG génne woon waa promoteur yi génne woon ñu ne amul benn promoteur bu mës a def cinquante millions francs de guichet amul te xoolal yow yan kese fi dégg fii mbër fay ko ne fi cent cinquante Sénégal mbër feeku na fi cent cinquante millions léegi cent cinquante millions te yow man ma ñëw si cent cinquante millions yeeg deux cent cinquante yooyu noonu man euh, ci ci ci làmb damay dégg ñuy wax ay cent cinquante millions millions yi day bëri mais damay dégg mbër yi léeg-léeg yéen si seen biir ngeen am ay ay mbër yom te dañ leen di fay ay cent cinquante millions ay deux cent millions xam nga ñoom problème mu écrit ñi naan man sama écrit bi fii léegi million yooyu anamu fan la nekk ah ak ah, problème yi mbër yi di am ah, man aw ma xaalis wala dama am kii dama am problème wala écrit bi aw ma fii te nga mën a jënd ci millions yooyu ab terrain defar ci écrit mais millions yi est-ce que du lu ñuy dégg nii rek est-ce que ñu ngi koy gis. xam nga yooyu ay question personnelle la moom xam nga nit moom boo nit nit nit moom kenn ku nekk yow yaa ni nga xamee sa bopp kenn xamee la noonu. Mhm. yow nga am xaalis ak yow yaa nga gis si àdduna yow mi sax da dal des fois da nga yor bu pare waxee nga ne ko yoruma dara. loolu tamit ku ne xam ne sénégalais sax loolu moo yàlla def na ko ci ñun mhm. maanaam yor ba pare au lieu nga taxaw sant yàlla mais nga naan yoruma di jooy xam nga loolu bon ku koy def ku ne yow la engagé mais ku ne xam na ni tamit bon lamb tamit bon bareegul xaaj bi tax ñuy wax parce que 150 boo ko jàppee ne lu bari la bari na bariwul parce que tey boo xoolee 150 yooyu lu ñuy yëkkati cash jox la wala loom te dañuy wax nii rek ne 150 millions pour am riir am leneen lu ñuy yëkkati jox la si suuf tudd tudd turu 150 millions ci kaw maanaam lu gën a yées cent cinquante millions wala kopp waaw ko gën a yées tamit koy a yées ba pare ñu fay mbër bi mbër bi tamit àndaale si mais tamit lu li ñuy fay mbër bi moom la la gën a yées cent cinquante millions lay doon ah, <laughs> nax parce que yow nga taxaw ne cent cinquante millions lañ ma fay fekk yow ñu la fay cinquante millions yow naxoo kenn sa bopp ngay nax yaa ngi dégg loolu damaa yaakaar ne bon nit dofewul noonu mhm. ah man boog du ma ko def man du ma déclarer lu ñu ma fayul mhm. du ma ko yéesal du ma ko ëppal mais nag dama la benn affaire rek 150 millions du dara boo xoolee tey jii sportif yi ay ñoom Sadio Mané 150 millions boobu ngay wax ñu war ko fay Modou Lo bu ki préparé 6 millions 6 mois ku mel ni moom lañ koy fay ci une semaine est-ce que du ëpp ko. kon sportif lu mu am lu nekk bariwul parce que sport moo mel noonu sport moo barkee noonu. sport foofu yàlla barkeel la lu ne mën na ci am yaa ngi dégg bon ko organiser daal. c'est-à-dire que bu 150 millions yi yeeg bu ñu ko organisé wul dañ dem ba 50 millions sax dootuñu ko dégg. Mhm. parce que tamit promoteurs yi duñ jël seen i biens wala ñu hypothéquer seen i biens pour tamit xam nga rek di bëggal ay doomu doomu jàmbur. Mhm. duñ ko def sponsors yi ñoo war a ñëw jël xaalis def ko ci xam nga ci combat yi. sponsors yi tamit pour ñu ñëw tamit il tamit làmb ji tamit wane image bu rafet. ñu bañ a bàyyi tojante bopp yeeg sànnante xeer yeeg xeex yi ci tribune yi. Mhm. xam nga yooyu bu ko filmé di ko wane. sponsor tamit buy wane day wane. Euh, lii moom Pape bu ma ko laajul moom internet yi dinañ ma mere parce que liñ koy laaj ci commentaire yi dafa bëri trop trop trop trop mais yéen euh, internet yi li ñuy laaj mooy yéen seen visa yi fan ngeen koy jëlee ah tamit bëggoon naa xam ba xam euh, at bi li nga ñëw ñëw bi nga ñëw fii da nga ñëw pour contrat wala de parce que ñu comprendre bu njëkk euh, dañ du gis mbër yi bu ñu daan ñëw contrat moo leen daan indi fii États-Unis d'Amérique mais léegi mbër yi dañuy ñëw sans contrat sans euh, am combat wala lu nu mu demee visa bi. mais xam nga loolu tamit yéen a ngi tooñ mbër loolu yéen yéen bu ngeen amee fit du ñun internet internet bu ñu amee fit ah, bu amee fit dañuy bind lettre laaj ko waa waa waa ambassade ku xam ne ne ku ne xam ne États-Unis bon c'est le pays le plus sécurisé du monde États-Unis ku ne xam ne ne doxuñu ci lu dara lu ñàkk fayda sen frontière balaa nga cee dugg ku ne xam ne ne li dugal lu leer lay doon léegi nag ku ne xam ne ne bon statut sportif sportif nag bokkul ñun suñu statut moom moo ñu ko may parce que tey ku ne xam ne ne bon ñun statut bi ñu yor sportif la ñu day entraîné te ku ne xam ne Amérique ñoom ku leen indi xaalis la ñu gën a gëm ni ko fi jël xaalis génne ko te ñoom xam nañ ne bon ñun bu ñuy ñëw fii dañ fi ñëw en base de contrat ñoom xam nañ ne yëg nañ millions yi fay fay kon ñoom xam nañ ne ñun bu ñuy ñëw fii dañuy ñëw benn soit dañuy dal ci hôtel yi wala ñu ñëw fii xam nga bon loué ay appartement bon di fay salle di fay médecin di fay ay entraîneur de boxe yooyu yëpp dañ koy def waaye xam nañ ne bon ñii dañuy investir ci dëkk bi moo tax bon visa bi ñu mënuñ ko yombal te aussi xam nañ tamit eh, ñi mbër yi fi ñëw toog yëpp américains yi xam nañ ko Amérique ku ne xam ne ni ku fi ñëw toog xam ne ne da ngaa toog ku génn xam ne ne génn nga mais xam ne ne mbëri amal nañ leen njëriñ parce que xam ne ne ay borom doole te dañuy liggéey yow bu fi mbëri ñëw ba tey ban scandale wala benn crime wala ban viol nga fi dégg ne mbëri def na ko fi mosoo dégg ñu fi wantit benn mbër di ko wane ci télé bi na diw mii ñu ngi koy recherché maa yaa ngi dégg ku ne xam ne mbër moo gën a ragal ci àdduna te teraangam kenn du ko yàqal te dëkk bi dëkku teraanga la mbër yi fii ñëw bon am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey di entraîné loolu am na fu nekk ah da gis élève buy jàng di liggéey di fay njàngam am na Amérique am na. élèves élèves yooyu nag ñoom ñooy bind en général ñooy bind commentaire yi si biir ne ñoom dañuy jàng bay bëgg a dee mais visa États-Unis pour ñu am ko du day jafe mais mbëri moom. moom moom dafa mel ne yoonu États-Unis ñoo ko. mbëri xam nañ ne américain xam nañ ñii bu ñu liggéeyee ba am xaalis après wala bu ñu fi nekkee sax bu ñu fi toogee même mbëri bu ñu fi toogee sax ba am xaalis. Mm. dañuy demaat Sénégal yaa ngi dégg génn dem foofu mais américain li ñu gën a bañ mooy tey nga ñëw fi Amérique jàng ba ne ar nga war dem jëriñ sa réew après nga toog fi yan élèves ñoo fi ñëw ñaata élèves ñoo fi ñëw jàng ba pare am xam am xam-xam xam bu rëy war dem jëriñi ko Sénégal war a dem développer ko Afrique non nga toog fii Amérique di ko fi liggéeyee mhm. léegi ñoom xam nañ loolu parce que américains yi tamit attention visa bu ñu maye muy B1 B2 xam nga affaire tourisme lu luñ la may rek yow xam nañ tey li la fi indi ak li nga fiy def ak ak taux bi fi ñëw ñan ñoo toog ak ñan ñoo génn ak ñan ñoo def lii ak ñan ñoo def lee ñoom xam nañ mbër yi ñu may liñ fi nekkee xam nañ ne mbër yi carrément ñi fi toog sax xam nañ ko mais xam nañ li ñu fi toogee parce que Amérique ku fi nekk xam nañ li nga nekkee fii yow xam nga yow koo xam ne tey jii buñ la soxla woon tey jii mhm. quarante huit heures mhm. ah ñu fekk la fi nga nekk mhm. kon li nga nekkee xam nañ ko mais est ce que duñ lañ nekkee moo leen arrangé parce que ku xam ne ne dëkk bi bon tey boo waxee a quatre vingt pour cent étranger ñoo ko defar. surtout borom doole yi. Mm-hmm. te mbëri ku ne xam ne ni ñi fi ñëw yëpp ñu ngi seen digg doole. léegi bu ñu toogee fee ak entraînement ni mu méttee après américain daal xamalaa bi affaire du jël ku amul njëriñ ku amul njëriñ kon dëgg la euh, ñi daal di koy ñi daal di koy jaajëfal bu baax a baax daal di ñëw euh, ci sa wàllum communication vraiment dañuy euh, dégg ni ngay communiquer dafa dafa dafa dafa dafa dafa jaar yoon da nga jàng wala no communication moom du jàng fa que chaque jour nga dégg ku jàng kuy waxtu waxi doona. maanaam da nasaraan bu sax dégg ko. Eh. ak jàng du benn parce que tamit am ñoo xam ne Youssou jàngul. Mm-hmm. te tey jii Sénégal ñu ngi gën a dégg tubaab bëriwul. c'est-à-dire que rek comme olof comme bambara comme séeréer soo ko bëggee mën nga ko mën bon malgré que am naa benn de d'étude Mm-hmm. mais xam nga sori ma ci njàng no sori yooyu nag xam nga da nga ma bëgg a kalaatee xam nga ma dugg samay. dama koy kalaatee sulu samay mbóot ma fay. da ngaa gën a dégg guy gi français nga fra mi nii sax lii sax nga gis nii. Mm. billaay wallaay habitude la ci man. parce que man ba ma nekkee xale la sama papa di ma làkk français. Mm-hmm. comme gone gee gis nga xam nga. Mm-hmm. tey jii kii loo ko wax tey jii mu dégg ko kii tey jii a dégg làkk bu nekk boo ko yóbboon Chine tey jii dans deux ans mu làkk chinois. parce que xale bokkul day ni muy capté bokkul ak mag man ba ma nekkee xale la sama papa di xam rek daan ma wax ay français pare communication tamit eh, duñ question de kii gis nga lu sur d'antan yàlla moo koy may nit. maanaam boo waxee ñu déglu la. Mm-hmm. yaa ngi dégg nit dina wax lu dëgg wax lu neex te nit ñi duñ ko sax déglu. nit dinay wax ay kasaw kasaw te fu mu waxee ñi ñëpp ñu koy déglu. loolu may suñu borom la. Mm-hmm. parce que wax tamit la ca jub rek suñu borom la la mais yaa ngi man communication bi xam nga te tamit su may wax tamit damay sóoraal lu bëri dama nekk ak su ku ci mel ni grand coxo avant ngay ñëw waxtaan na ak moom. dëgg la yaa ngi dégg parce que yow waruñu woon def émission bi fii ñu ko waroon defee Kër Kumba. grand coxo tooñ la ma non ma ne Kër Kumba lañ ko waroon defee hmm. mais xam nga muy sama grand. di suma kilifa bi ma ko waxee daf ma ne carrément fii lañ koy defee. yaa ngi dégg yow bi nga xam ne nga foo lañ kale affaire yi. yaa te après loolu nee na ma carrément man moom li ma lay ñaan rek mooy na ma la xamee woon noonu ngay def rek. waaw moom tamit xam nga. moo tax tey nga changé communication bi parce que démb bi ñu tasee li nga doon wax ak li nga tey moom. non yow dafa am lu ma laaj lu ma la tontu la dafa am. Oh, <laughs> da ngaa seral. da ngaa seral. daa a non c'est-à-dire que yow man ak yow ay xarit lañu. bu mbedd mi dinañ xeex dinañ kii mais nag loo bëgg fi tamit lii émission la boo xoolee tamit xam na kilifa koy ba pare tamit boo xoolee yow tamit sa émission bi macha allah. parce que tamit yow yaa ngi représenté diaspora bi. fii yaay wasaare. yaay wasaare ku tamit ko xam yi waa Sénégal bëgg nañ xam la lay nekk Amérique. Mm-hmm. te bu nekkuloon yow xa amaana duñ ko xam. duñ ko xam yaa ngi dégg parce que mbër yu bëri dañuy ñëw dem ceene seen ruq mm-hmm. ñëwaat kenn du la xamal dara te loo ci xamul wasaare yemul rek ci wàllum làmb wasaare mi ngi ci euh, ci ci fànn bu ne ci politique beeg ci lépp. musique seen yeeg suuf bis beeg yëpp. yow tey xamal tey wasaare tey xool li nga am man dem naa Sénégal ñaata site ñoo ma proposé pour émission mais nanguwuma. ma la nanguwuma parce que dama ne leen maa ngi fi nekk pendant des années bëriwuma kenn ñëwul jël si ma nangam nangam léegi Pape Sène dem na Amérique ñëw rek après xam ne ma bëgg ko taalal micro du ma ko nangu ba ma ñëwee Sénégal cëpp laa commencé ñu ku ne woo ma waa Pape Sène nangam ma ne la euh, non aw ma temps su ma temps naa la wax mais yow bërki dem laa ñëw bi ma ñëwee laa la gis carrément te yow depuis daaw sama ñëw bale passé nga ko bëggoon xam ma man ñëw naa fi mois de mars juillet ma ñibbi ñëwaat fi encore nii ci décembre bi. mais boobu bëggoon ko xëy na yàlla ko dogal woon. te yow gis nga boobu saa yoo ko te boobu yaa ngi nekkoon ci cappaandaw te boobu gis nga maa chaque jour nga ne ma paa seen émission bi kañ la. ma après. parce que wax dafa yombul. yaa ngi dégg wax dafa yombul te wax dafa garaaw wax ba lu fetal la lu ci xës a génn rek du ñëwaat moo tax man ma xaw ko ragal moo tax dama koy préparer mm-hmm. moo tax bi nga ñëwaatee bi yoon ma xam ne ni carrément nag am nga vraiment ambition def man émission mm-hmm. moo tax ma ne du ma xaar sax mu yàgg parce que amaanaam comme maa ngi doog ñëw te euh, activités yi commencé gul carrément su ma demee ba buuse te ku ne xam na ne bon. dëgg la mooy moom mooy loolu bu sa yaram tàngee du ne. dëkk toog ak waaw ah, bu sa yaram tàngee kenn dootu la dégg. kenn waaw waaw. léegi boo dina fas dugal voice ah, mais. gis gis nga gis nga yéen. ay ca kon ñi daal di dem ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, fin carrière bi nga xamante ni dégg naa ko si sa lamine nga wax ko da ngaa nekk ci yoonu bàyyi làmb wala. waaw xam nga fin carrière boo ko déggee làmb kenn du ko bàyyi loolu gën a bon sax te moom la mbër yi def nii nekk ci làmb làmb teral la làmb tax ñu xam la tey jii xoolal li ma la wax. yow ku xam ne gis nga élèves yaa ngi jooy jàng école tey ba dara bu desul nga bëgg a jàngi xam-xam feneen dem ñaan visa bañ. dëgg la yaa ngi dégg ñaata nit ñoo nekk Sénégal yoo xam ne tey jii bu dee xaalis yor nañ ko bu dee tur am nañ ko bu dee alal am nañ ko te bu ñu demee ambassade ñu rejeté leen ñaata mbër lañ fi may yoo xam ne ñuy sax siiw ñu sax ci làmb yenn siiw yi. mais xam nga kon nga xam ne làmb euh, vraiment bu lam dara du làmb rek mbir boo ci nekkee bu lay dundal yow koy dundal mais li gën a bon mooy dundal làmb te doo dundal làmb mbër yi nga xam ne nii xam nga bàyyi nañ làmb doo doo nekk ci benn mbir moom moomu tax nga am li nga am wala tax ñu xam la yaa parce que làmb dafa yaatu boo ci amul ay millions tamit yàlla dala ci boole ay nit ñu baax ñoo xam ne nii bu sa soxla taxawee ñu faj ko dañ ci am ay ouverture parce que tey jii dëkk mel ni Amérique jii est-ce que bu nekkuloon ah, làmb Pape Sène dina fi mën a ñëwee nii ah surtout yàlla nga am opportunité di ñëw di dem yaa ngi dégg bii mooy sama deuxième fois est ce que bu nekkul woon làmb loolu kon tey jii man tey xam ma bëggee ŋaañi làmb wala ma bëgg a saboté làmb wala ma bëgg a jékki-jékki bàyyi si gàttal daal bàyyi woo làmb si gàttal moom bàyyi non bàyyiwuma làmb làmb dama ko bàyyi maanaam boo déggee ma naa la fin de carrière mooy maanaam at yi parce que tamit làmb si 45 ans la te 45 ans nag wax dëgg yàlla bu la leen biir 45 ans nga ciy arrêté nga am 40 foofu laa ko waxee rek. kon ñëwoo toog comme ni ko sa mbokk mbëri que ñëw toog pour lan visa bi ma am du visa pour toog am naa possibilité yow bu ma doon toog ñëwoon naa. dëgg la ah, fi cinq mois. cinq mois six mois lañ ma mayoon. Mhm. cinq mois sax des na def naa cinq mois yi manqué une semaine dem kon su ma doon toog foofu laay toogee. yaa ngi dégg maanaam toog beeg dem beeg ñëw toog kooku man la man la engagé su ma dee ba sentir ko tamit ma toog rek parce que fii ñu fi toog bari nañ yow mi da ngaa toog keneen daa toog keneen daa man maa la wax damaa toog toogo <laughs> wax nañu wax wax rek waxal sa toog baal sama toog man tooguma ah toogo man bërki démb laa jóge Sénégal ah yow mi na waaw waaw ok ok ok waaw léegi euh, Pape ñu daal di ñëw ko ci làmb comme yaa ngi ci làmb ba léegi yaa ngi ci des bàyyeegoo euh, fan nga teg sa bët waaw fi ma teg sama bët mooy man moom ku ne xam na ne bon sama bët sax ko fenn ci làmb rek laa ko teg teguma ko ci kenn nag du ma xaw ma teguma benn mbër du ma la ne kii laa xiif ku ma laa képp koo xam ne làmb boole na ma ak yow rek muy xale muy ndaw muy mag te mu leer ma ne tey jii war nañu bëri man ak yow làmb jaadu ñu bëri man ak yow wallahi al azim ubbi naa sama porte promoteur yëpp mhm. képp koo xam ne ne jaadu rek man ak yow ñu bëre yaa ngi dégg man moom nangu naa bëri revanche yeeg combat jànq yeeg combat yu màgget yi moom xam naa dootoo ko laal kooku moom fi toll nii moom ah, naa koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm. mais fi mu ne nii moom waaw moom moom naa ko ñaanal daal mu bëree xam nga yàlla. defal ko defal affaire la. waaye xam naa ne moom daa moom buy bëree Balla Gaye moom. Balla Gaye laa faral. te Balla Gaye laa ñaan yàlla yàlla may ko ndam. moom booy ñaan sax xam na loolu. waaw waaw waaw bu dul loolu nag vraiment tamit nit ku baax la parce que tamit bu ñu dajee ñi ñaar vraiment dina ma jox cëru mag ma jox ko cëru rakk rek et puis that's it. est-ce que fa seen nga tàmbali xoolaat sa làmb jàngataat sa làmb bu baax a baax a baax parce que Pape Sène bi ñu bi ñu xool Pape Sène bu ñu jàkkaarloo gis ko ci lamb ji euh, defet yi nga xamante ni am nga ko yëpp daanaka mën naa ne même erreur bi la xadar gi ngay indi jaay doole bi ñu nax la daan. waaw kooku nag moom mënatul dañ ci woon moom am na yoo xam ne nii bu la nit ne mën na dañ sax euh, ne ko un te bañ ko gëm parce que def naa loo def di def def du tey nga koy changé wala suba bo da nga naan xëy na ñu yokk entraînement yi rek bon mais nag quant à changer bëre bi mooy lan war bi soufflé ngay reculer wala ngay calculer kooku moom du ku ne xam ne ne man du sama nature. moo la ko waxee fii tamit mënul nekk. nii nii rek tey jii bu doon bëre tey jii maa lay njëkk a song maa lay may dal sa kaw. ndax bu ñu doon bëree man dina métti de. non yow moom taxoo may wax sax. waaw exemple laa joxe rek. waaw xool nga ma. ah xool naa trop. waaw bu ñu yow dina métti. yow kay nee naa dina mel ne tuqa sa bënn saañ bëri. kay nee naa moom vraiment war nañ la xoolaat parce que nekk Amérique gii ak lekk yi ni ñu neexee fii. Mm. nga tëral doo am yaram nga mel ni xaru pël pël ay jagoon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di eh, jaajafal bu baax a baax a baax di ko jaajëfal Pape seen nii ngeen ko gisee nii nii la men eh, nit la boo xamante ni nit bu am jàmm la nit boo xamante nit bu am yëg-yëg si nit ñi la eh, vraiment fu mu toog kenn du ñëpp ñëppay ree yàlla na ko yàlla jàppale defal ko sutura defal ko tawféex laataa ñuy tàggatoo dinaa la jox nga tàggatoo Pape dinaa la jox ah maa ngi jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ci biir wasaare te leen di wax ni bés leen cloche bi xam naa ne am na ñu miin cloche bi sax comme ni ma ko daan waxee xóot ñaari nopp ca kaw moo lay wan ni saa boo bëggee dugg ci biir euh, euh, wasaare di nga ca dugg waaye tamit saa bu ñu dugalee vidéo euh, dina toqantal sa biir téléphone wala sa biir machine ordinateur wala ci li nga xamante ni moom moo jëm ci li ngay yëngatoo pour seetaan li nga xamante ni moom moo di site bu mag bi di site wasaare wasaare li nga xamante ni moom moo jëm ci lépp lu jëm ci wàllum actualité di wasaare ci li nga xamante ni moom moo jëm ci lépp lu jëm ci wàllum information waaye tamit ci wàllum làmb ñi ngi nuyu bu baax a baax a baax Père Bekaay Mbaye ah du ma taay si di ko nuyu ah, di bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo di euh, Euh, Prestige multimédia Kumba Ndiaye euh, mi ngi foofee ci Prestige multimédia maa ngi koy euh, ziar bu baax a baax a baax di ziar waa Baobab Kiné ca Baobab moom i may mun a maa ngi leen di nuyu baax a baax astu jongama ba ca ki nga xamante ni mooy sama bay damour sama pili foox sama tampi la pax pitax seek sa jërë monsieur Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa 116 bi yëpp su ma dee lim damay jum ah su ma li olof Ndiaye naan doo jum sax waaye dëgg dul matal waaye dee leen ko bës rek cloche bi dee leen ko bës baax a baax daal di bàyyi ki nga xamante ni moom moo mbër yi Pape laata Pape ñu daal di jaajëfal bu baax a baax euh, suñu grand Coxo Coxo Diagne euh, ñi ngi ko fekk si tey si këram euh, mu nekk nit ku baax nit comme te ni def na lu rëy ci aar moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax tey jii ñu ngi daal di bàyyi ki nga xamante ni moom moo di Pape Sène mu daal di tàggatoo ak askan bi. waaw tàggatoo tàggatoo sama lay xaw foor xanaa ñu gërëmante rek santante waaw parce que ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. Euh, di sant rek waa États-Unis parce que ku nekk xam na ne communauté sénégalaise bi ne fii macha allah vraiment tamit am nañu ouverture parce que ku nekk xam na ne li ma lay rek ku la jiitu ci néeg bu la moo la fi ngay toogee vraiment tamit dañ ci fekk ñoo xam ne nii ñoo fi jiitu ñii dañ yëkk seen alal di la jox ñii dañ lay héberger ñii dañ lay jox ay conseillers wax la fi nga war a jaar ñii dañ lay jàppale ci xam côté bu nekk yaa ngi dégg yooyu yëpp dañu am ñu ngi leen di sant ñëpp euh, sant bi nag yéen ci la ci jiite yow mii. parce que tey jii bon c' est pas évident tey nga yor sa émission xam nga yor sa sit mu dox loolu muy wasaare comprendre nga xaw ma noo def joxuma la dërëm laajoo ma dara maa ñëw xam nga déplacement ku ne xam ne Amérique fii tout sa paye nga déplacé wu ñëw gis nga avant ngay gaar rek xam nga problème am nga une heure temps ci biti du dëgg yooyu yëpp maa ngi lay gërëm di la gërëm sa caméraman bi mooy mooy sama jinnay caméraman caméraman yëpp bëgg na ji caméraman yëpp bëgg nañ ñu leen di tudd mais man caméraman bi bëggul ñu koy tudd man loolu mooy sama problème <laughs> neel mbay maso mais vraiment muy nit ku professionnel <laughs> euh. vraiment parce que man yàgg naa jàkkaarloo caméra nag mhm. waaw dama yàgg télé vraiment xam naa nit xam naa vraiment euh, vraiment xam naa caméra ni muy doxee xam naa caméraman ni muy doxee mais gis naa ci moom professionnalisme gis naa ne yow mii sax bon yéen a ngi vraiment gis naa tamit entente bi ngeen yéen ñaar di yàlla leen yàlla dimbale ay xale ngeen di doog a door ku ne xam ne yoonu ndaw gaawul mm-hmm. mais lii yàlla na dem ba nekk ay télévision nekk bon maanaam yàlla nekk lu rëy rëy yàlla dem ba mel ni futur média yaa ngi dégg te yàlla may na ko parce que tamit tout début est difficile te ñëpp nii lañ commencé te vraiment tamit eh, ngeen nit yu am jom yaa ngi dégg bon di liggéey di bay seen waar ku ne xam ne fii Amérique moom eh, dëkku liggéey la mais tamit maa ngi gërëm waa 116. waa di gërëm suma xarit suma doomu ndey Mafal yoo xam nga Mafal. suma di gërëm suma xarit Malick Malick Mbaye. Malick Mbaye muy nit ku baax. Malick Mbaye maa ngi koy bëggee di ko ziar bu baax a baax. muy nit koo xam ne mbëri ñoom Amérique yëpp xam nañ ko. yaa ngi dégg di gërëm ñoom Bas. Bas bu 116. yaa ngi dégg di gërëm suma grand bu baax euh, Matar Lo. Mhm. bu fa Matar bu ni muy nit ku baax a baax di sama jëwriñ di sama njaatige ñu nekkoon depuis Sandaga di gërëm suma rakk ju baax Naar Touré ci New Jersey nga xam ne li ma lay wax rek Amérique boo fi duggee ginnaaw yàlla ak yonent bi sama ñaanu waajur moom moo tax moo fi njëkk dalal ma nekk moom dëkk ak moom six mois muy nit ku baax yaa ngi dégg yu bëri fii moo ko xamee yàlla ak moom a tax maa ngi koy nuyu di nuyu suma rakk ju baax di ñu wax euh, Modou Diop di cousin Naar mu ngi nekk fii ci Bronx gi la dëkk muy booy bu baax vraiment Modou maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm suma xarit euh, Papy Brown xam nga Papy maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm suma jigéen vraiment euh, faatu Fatou xam nga ko moo nekk 116 euh, moom mooy def wari bi waaw maa ngi koy gërëm bu baax ak ak leen Balen Figo waaw di ko gërëm di gërëm waa nag waa restaurant Kër Kumba vraiment di gërëm suma naaru kajoor yooyu na ma dar manko yooyu vraiment ñu baax yi nga xam ne ma yàgg ak ñoom nag vraiment dama yàgg ak dar maa sama xel dem ci sugu ay ñoom mag yi maa ngi leen di bëggee. vraiment di gërëm ku mel ni ñoom euh, grand euh, Cheikh Amar ñoom grand Alaaji Babu ñoom grand Mayokku Babu mhm. ñuy sama grand yoo xam ne Sénégal le laa xamante ñoom yàlla def ba ma fekk leen fii New York ñu may defal teraanga di gërëm tamit waa restaurant Le Baobab Euh, xam nga ni tamit moo tax namuñu Sénégal yaa ngi dégg yow xam nga li ma la wax namuñu Sénégal de nañu baaba baab am nañu kër kumba am nañu kër kumba am nañ seas am am nañ am am nañ Pikine Pikine yaa ngi dégg vraiment muy ay restaurant yoo xam ne ni boo fa demee rek vraiment yu jom parce que tamit yu am jom di togg togg sénégalaise xam nga mm-hmm. di ko togg togg mucc ayib ba pare xam nga di la ko jox nag jox boo xam ne nii vraiment ci teranga la la koy joxe <laughs> vraiment di gërëm nag suma grand bee coxo coxo Diagne muy nit ku baax xam nga li ma la wax. ak a baax yàgg dalal fii artiste bu ne dal na fi. ak a baax ak a baax. xam nga xam nga ne fauteuil bi mu doon wax. ndeysaan ah bu mu doon wax. ay bu mu ay bu mu nettali. ay bu fauteuil doon nettali. tey boo xam ne nii ku ne toog na fi. <laughs> ndeysaan ah tey jii star bu ne toog na fi. dëgg la muy musicien. muy mbër muy lépp rek toog nañ fii. waaw ku ci nekk coxo ñëpp. ñëpp toog nañ toog ak moom des fois nit woo ko téléphone sax damay tiit star bu mag billaay wallaay te du ma ko te moom xam nga muy nit ku yaatu nag yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko mu yàgg ak njabootam vraiment yàlla may ko muy dem ak ñëw yaa ngi comme ni mu koy defee vraiment yàlla def ñun ñi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk rek liñ fi wut yàlla na ko yàlla jox mhm. ci barki suñu Babacar Si ma yaakaar di ki profité nag di gërëm suma grand bu baax nag euh, bu ñuy wax Abdourahmane Ndiaye mu ngi ci Sénégal nga xam ne tey jii gannaaw yàlla tey népp nu ma mel moom la mhm. di gërëm suma xarit Babs Babacar Seck yaa ngi dëkk euh, Babs borom euh, VIP moto di gërëm suma grand Jal Kane yaa ngi dëkk di grand bu baax ñoom ñëpp nekk ca centenaire ña nga Sénégal waaw suma grand Ibrahima Diallo Los muy sumay grand yu baax a baax xam ne ñoo ma jàppale nga xam ne ba muy métti vraiment te euh, ñoom laa gisoon di gërëm nag suma jabar nga mën a parce que tamit dañuy derrière chaque grand homme yaa une grande dame. muy jigéen boo xam ne nii solal ma benn yoon. jàppale ma nag ci ba muy métti. Mhm. te ba ba léegi rek mu mu ngi ci. ma koy gërëm vraiment di ko ñaanal. yàlla na ko yàlla defal jàmm mu dem ba fekkee njariñu njabootam. Mhm. lépp lu mu mébétoon ci man rek yàlla defal ko ko ci barki sëñ Babacar si ma yaakaar. maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp. di gërëm waa dibiteri yi ñoom waa Kër Massar waa Medina. ku lim dëggee Colobane ku lim dëggee. ku lim dëggee doo matal da nga dul matal. waaw li dugg si nag mi xajul ci cin. déedéet waaye nag ñu dagg li ci gën a baax dugal ci li rek. ay ci kon mi ngi noonu di jaajëfal bu baax a baax ñi ga xamante ni ñoom ñoo nekkee foofee ci diwaanu ko HLM 5 di samay euh, doomu ñoom te ni ñoom ma màggandoo aadi euh, ay baay duudu as Demba Dia di bëggee bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Grif Sougou mag yi maa bu baax a baax a baax euh, di bëggee bu baax ki nga xamante ni moom moo di Awa Cheikh Eva Fashion nekkee fële ca Paris la France di bëggee bu baax a baax Tons Diawara euh, maa ngi koy bëggee bu baax baax a baax a baax euh, di bëggee bu baax a baax euh, maam atu di bëggee bu baax Mbacke saar di bëggee bu baax a baax Diop Guèye Sarr borom ñetti sant yi waa groupe bu waa groupe bu wax sax xalaat bu Griff Sougou ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee maa ngi leen di jaajëfal di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax naka noonu mbokk yi ci nii laay tàggatoog yéen ATM sec boo xam l'est l'ouest le nord et le sud jantal animateur best of d'animateur in the world fii ci New York ci kon tëjal ma lii waaw keñ <laughs> yaa am jom <laughs>